billahi min asheytaani irajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu alihi wa sahbihi wa sallama tasliman asalaamualeykum wa ñu ngi nuyu mbokk ñu teew yëpp ci turu Serigne Amdi Fall jëwriñu maam Cheikh Ibrahima Fall di jottali nag ab nuyoo bàyyi ko si moom ak ziar jëm si jëm nañu am Cheikh Modou Mountakha muy Xaadimu Rasuul di jottali nag ay ab nuyoo bu sell ak ziar mu jëm si njabootu boppam gi di njabootu maam Cheikh Fall muy ñi nga xam ne ñëpp rek ñoom la bokkal Cheikh Ibra Fall ànd ak ñoom liggéey bi nga xam ne mooy ndigal yi bàyyi ko kër Sëñ Touba di root saa su ne mu ànd ko ñoom. di ko jëfee ni nga xam ne noonu la ko sëriñ bi diglee jataay bii nag li ko waral mooy jataayu ndigal la kenn ku ne xam na ni liggéey bii di sàmm war may Touba ba nu ko tàmbalee dox ci ab diir jamono yi nu wees yépp amoon nañ ak tekkeeral boo xam ne kenn ku ne yëg na ni am na taxaw bu nu taxaw boobee nag defuñu ko woon ci sunu coobare dañ koo defoon ngir ndigal loo xam ne dafa bàyyi ko woon ci sëriñ bi jëm ci fi noonu la ko waraloon mooy sëriñ bi dafa bëggoon gannaaw dox nañ ab diir ñu gis ni am na ay pakk ak i gàllankoor yu ci feeñ ak yenn yoo xam ne xaj na lu nu war a defaraat la te jàngat boobee ñu dem ba teg ci sunu ba xam ko sëriñ bi wax nag ne nan ne tekk nag daal di defaraat liggéey bi jublu si nag sukkandiku si li nga xam ne mooy bëggug sëñ Touba Cheikh Modou Mountakha mu doon kàddu yoo xam ne wala mu doon bataaxal boo xam ne kenn ku ne gis na ko wane nañ ko fépp. sëriñ bi génne ko daal ko yeesal si sëriñ Amdi Fall xamal ko nekkoon li ma bëggoon mooy njaboot gi nañu tënku si lii nga xam ne mooy digle yi fi Cheikh sëriñ Touba Cheikh Abdoul Ahad bàyyi woon nga xam ne li ma si dolli loola sëriñ bi wax na ko mu doon wàllu politik ak wàllu euh, njàngale moo xam ne wuute naag njàngalem sëriñ Touba fii si biir dëkk bi loolee ak football la loolee bi nga xam ne ndigal loolu agsi na si sëriñ bi si la sëriñ bi wax nag ni nañu daal di taxaw nag defaat ab seetlu defaat euh, nag ab gëstu si lii nga xam ne moom la bataaxal bi wundu loola doon sababu mu noon ay jëwriñ boole leen ak nun ñii nu toog ay jataay yu yàgg yu bari di say di saraa li nga xam ne moom la sëriñ bi tënkoon ci bataaxal boobee euh, génne la nga xam ne loolu la sa sëriñ bi jublu bañ ko saraa ba génne sa lan si xalaat nu delluwaat ci sëriñ bi xamal ko ne ko bataaxal bi kat lii ñu si bind bi biñ si defee ay waxtaan nii lañ ko déggee nii lañu xalaat doxe noonee sëriñ bi seetaat loolee daal say indiwaat ay jubbanti delloo na ko ñu saytuwaat ko ba mu àgg sax foo xam ne nag sëriñ bi wax na ni nii mu mel noonu rek laa ko bëggee kon na ngeen daal di su jaaju nag takku nag ngir nii nga xam ne noonu la ko sëriñ bi bëggee gannaaw xam ngeen ko ngeen fas yéene koo jëfe noonee boobee nag la sëriñ bi daal di joxe ndigal njaboot gi ñu defaat ab ab ab ay tànn yoo xam ne ay kuréel yu bari yoo xam ne samp nañ ko kuréel yooyu bañ koy sampit lañ si jublu woon mooy bëgg ak jàppandal kenn ku ne am wet goo féete kenn ku ne am loo xam ne yaa ko téye su ko defee liggéey bi des na ko mën a séddoo suñ ko séddoo dana jàppandi ndax dana woyef suñ ñëpp te kenn ku si nekk la nga yor da nga am jotug man koo saytu ba xam dëgg dëgg ni ko sëriñ bi bëggee ñu defe ko noona si kaw anam yooyu lanu defe nag bureau boo xamante ni bii dañ ko sat wutal ko njiit njiit li di sëriñ bi mu jox ma kàddoom ñu ta sàkk secrétariat général boo xamante ni bii sëriñ Assane Fall moo ko jiite ànd koog sëriñ euh, Ousseynou ak sëriñ Baye Ndaam ak sëriñ Maam Cheikh mii toog ak sëriñ Fallou ak sëriñ Moutalaam sëriñ Abdou Sakkoor ak sëriñ euh, Bada ak sëriñ Abdoulahat ak mboolem sunu wajur yooyu nga xam ne ñoom dañoo nekk sunu kanam sëriñ bi jox leen. secrétariat boobu ñu nekk suñu kanam ànd ak ñun liggéey bi waaye ñu tànn nag yeneen mbooleem li nga xam ne jëm na si wàllu commission luy doxal luy doxal mbooloo loolee Serigne Aliou Fall mii nga xam ne moom mooy yore wàllu communication dana si dellu si leeral ko ba ñëpp xam ko waaye li am solo mooy taxawaay bu bees bii nga xam ne moom lañ fas yéenee jublu sëriñ bi moo ko digle santaane ko sakkal ñu yoon wu nu jaar. yàlla dogal ñu am taw tawféexu ñi nga xam ne ñooy daayira gendarmerie retraité yi nga xam ne ñoo ne ñu newoon gendarmerie retraité ñooñu ñu am tawféexu sëriñ bi boole nu ak ñoom ñu toog ab biir lu mat weer wala ñaari weer loo xam ni defal nañ forme def nañ ay ay ay ay tàggat si mbooloo mi nga xam ne moom la ñu jàpp nañ ni mbooloo mu nu tànn la muy ay tànneef ngir jàngal leen wala won leen dëgg-dëgg. wala natt leen dégg-dégg bi nu am ci bataaxal bii lii sëriñ bi bëgg ñu liggéeye ko ñu dem ba xam ni ñii nag ba àgg si ñu xam ni ñoom ni ko sëriñ bi bëggee dëgg-dëgg am nañ yàqin si ne xame dañ ko noonu am nañ yéene doxee ko noonu ko sëriñ bi bëggee loola moo doon sababu ñu amaat ndigal nag daal di yëkkatiwaat liggéey bi yëkkati googu nag kenn ku ne xam na ne daje na ak yeesal bu sëriñ bi yeesalaat ndigal li si sëriñ Amdi Fall ak njabootu Cheikh Rafal ndax Cheikh Modou Mountakha mi joxe woon ndigal li moo woote yeesalaat ndigal li daal nuy gën a jaajaat daal nuy gën a euh, euh, euh, gën a jaaj ba ñun ñu xam ne sëriñ bi liggéey bi ñor gi àgg na ko foo xamante ni fii foofee nun mënuñu ko sax a natt te yaakaar ji mu am ci kër Cheikh moom moo ko xam ba tax mu jël liggéey bi dénk ko kon nun ñu xam ne buñ mënta natt sëriñ bi tolluwaayam boobeet nu xam ni daal fu ñor di toll rek liggéey bi ñor na ko ko ñu nit ñu am tawféexu lañ digee woon ak moom ne ko loonu digal daana ko def loolu tere daana ko bàyyi lii mënu digal ñu am taw pastéefu fas yéene defe ko noonu nga xam ne noonu la ko bëggee ci kaw noonu liggéey boobu nag moom la ñu fas yéene tàmbaliwaat incha allah suba di altine ñu fas yéene tabbiwaat si biir liggéey bi ñu doon bëggoon nag ñun ñi nga xam ne ñoo jóg jëm ci sunuy bokki taalibe ak bokki taalibe yi nga xam ne ñoom la ñuy fekk ñu ñu bëggoon waxtaan ak ñoom laabirante ak ñoom ba am ak ñoom ak déggoo ci li sëriñ bi bëgg ci dëkk bi ndax sëriñ bi dafa bëgg dëkk bii ba ko sëñ Tuubaa di sos la nga xam ne loolu la loolu la jublu woon bëggoon ko loolee ñu fas yéene sàmm ko waggar ko ba dara du ko ruur muy worma ji nga xam ne kenn ku ne xam ne ne sëriñ Tuubaa bu ñu waxee ma rek moom lépp daje na fi moom dëkk bi yelloo na ak loo xam ne maanaam bokkul di li Serigne daj ngir nu am tawféex gii loola wuute naat wala tolloowul ñuy dëkk si dëkk bii di doxee noo xam ne loolee wuute na ak war ma ji nga xam ne moom la moom la dëkk bi yellool sëriñ bi bëgg nag ñu delloowaat njukkal sëñ Touba si dëkkam bi delloowaat ko si njabootam gi bu ne njabootam gi nag mooy taalibe yi ko yaakaar rek ndax tuubaa ñu fi nekk ñëpp wut si rek luñ mënta ñàkk te mënaluñ ko seen bopp moo leen fi indi ñun daw daw di ko fi si ñu xam ne nag fi ñu koy wut si mi ngi fi waaye nag ñu fexe ba mennum ruur wala lenn lu mën a xajamal loolee loolee duñ ko duñu dajeeg moom loolee tax Serigne Mountakha bëgg ñu delloo Serigne Touba njukkal loolu sàmmal ko dëkkam bii sàmmal ko war may dëkk bi waaye sàmmal ko war may njabootu boppam bi loola mooy sababu jóg gi nu war a jóg daje jiwaat ak sunu bokk yi nga xam ne ñoo bokk pas-pas ndax liñ yéene jiñ ci am ñoom it yéene jooju rek lañ ci am jëluñu suñu teg ko sa kaw teg keneen fi suuf ay taalibe lañ yuy jóg war a laabirante ak seen bokki taalibe si li nga xam ne mooy bëggu sëriñ bi ndax àddina moo demee noo xam ne nit ki léeg-léeg mu fàtte wala léeg-léeg mu mu mu xaw a jaxasoo wala léeg melow àddina mën koo gane kon bu boobaa nag day soxla koo xamante ni kii dana nekk si wetam di ko fàttali li nga xam ne moo ñu fi indi te bàyyi ñu fi muy jaamu yàlla te noonu sunu jaamu yàlla mooy topp sëñ Tuubaa rek liggéeyal ko kon incha allahu ci ndigalul sëriñ Amdi Fall mu sëñ Modou Mbenda bàyyi ko si Cheikh Modou Mountakha jaar si Cheikh Modou Bachir moom sëñ Abdou Khadir di jëwriñ di kàddu yoon wi suba incha allah lañ fas yéene tàmbaliwaat liggéey gannaaw ba nga xamante ne bii jaar nañ si yu bëree bëri yoo xam ne jàpp nañ ni ak tàggat ak wàccaay la woo xam ne jàpp nañ ni mat na bañ war saa àgg kon ñuy ñaan ñi nga xam ne ñoom lañuy ñuy fekki ñu xam ne seeni bokki taalibe bi rek a jóg di leen fekk si ngir laabirante ak ñoom fitna yëkkati kat euh, fitna yëkkatiwunu ñëw ñu ngir xuloo ñëw ñu ngir xeex ñëw ñu ngir jàppante danoo jug ngir laabir ak sunu bokki taalibe yi ñu bokkal dëkk bi ni nu ko mas a waxe yàgg koo waxe noonu sëriñ bi santu nu dóore sëriñ bi santu nu xaste sëriñ bi santu nu fitnaal kenn sëriñ bi lim nu sant mooy ñu laabirante ak ñëpp waaye nag nu bàyyi xel ni bëggug sëñ tubaa day am bëggu sëñ tubaa faw day am kon li ñuy ñaan yàlla mooy ñi ñuy fekki te yàlla dogal ñu xaw a tuuti ak bëggug sëriñ bi sëriñ Tuubaa defal nu tawféexu bu nuy agsi rek nu fekk leen ñoom nu tege sa yoon woowee ba du nu am lenn lu nu war a defal si seen mbir loolu nag ñu ngi koy ñaan xam naa ne sëriñ euh, Bada dana si dellu si ah may wax it si loo xam ne ndigal la ndax kenn ku ne dafa am wàll bu ñu la jox léegi si mbir mi nga yor ko di ko saytu dinañ jox kàddu léegi sëriñ sëriñ Bada mu wax ndax moom ñoom ñoo yor wàllu communication waaye may soññ sama bopp nag di soññi waa dëkk bi di soññi suñ bokki taalibe yi ndax dafa am lu jamono jii loo xam ne dañoo daje dafa tolloo ak moom muy wàllu politique ñu gis ni politique moom ñun ñëpp dégg nañ ci kàddu Cheikh Modou Mountakha mu wax ni li ko gën a naqari ci dëkk bi mooy politique àggoon na ci wax ni sax wote yi ñu dëgmal su mënee nekk bu nu wotee ci Touba nañ toxal bureau de vote yi ginnaaw bi mu defalaat tawféex waa dëkk bi xam ne diggante bi xat na Serigne Bass leeral na ko yaakaar naa ñëpp dégg nañ waaye nu bëgg a woo nag suñu bokk yi nga xam ne ñoom ñooy def politique muy ñi nga xam ne dañuy bàyyi koo ñooy jóg di ñëw jóge feneen di ñëw ak ñi nga xam ne dañoo nekk ci biir dëkk bi te di ay ay ay ay ay homme di war a def ay activité politique ak ñii nga xam ne nag ñoom ay militants lañ nga xam ne ñoom dañ leen di woo ñu wuy ji ñu bëgg a am ñoom ak déggoo ci lii nga xam ne mooy bëggu sëriñ bi mooy bu ñu sañoon newuñu kenn benn homme politique bu mu ñëw kër sëriñam newuñu benn homme politique bu mu ñëw Touba loola sëriñ bi waxu ko digle ko santaane Touba ku bëgg ñëw na nga ñëw ku mu mën a dool ak activité boo mën a def sëriñ bi mi ngi fi boo ko yittewoo boo ñuy mën koo gis waaye ñu ngi sàkku képp kuy ñëw bu fekkee ni politique la yëkkati na nga fexe ba la ngay organiser nga defe ko feneen fu dul Touba bu fekkee da ñëw nag siyaare sëriñ bi yëkkati la wala waxtaan ceeg sëriñ bi wala ñëw jëfle am loo séq ak sëriñ bi ngeen war koo jëflante muy buntu kër boo mën a tàbbi si Touba te loolu yëkkati la loola de nun am na benn wax am na ak yow benn xarma li nga xam ne daal moom lañ bëgg a mooy li jëm si activité politique loolu bokk na si ñi nga xam ne dañuy def ay convoi def ay convoi oto yu baree bëri ànd ñu taal ay làmp taal ay sirène topp mbedd mi fu ñu romb nit ñi tàccu ñi tàccu ñi yuuxu loola loola day day loola politique la boo xam ne day xajamal li nga xam mooy bëggub sëriñ bi ñi nga xam ne dañuy dajale ci seeni kër walla si ay barab dajale fa ay militant woo fa ay responsable politique ñu toog fa di fa def ay jataay di waxtaan suñu sañoon ñooñu day buñ soxlaa lu mel noonu dem defe ji ko foo xam ne aayuwuñ ko waaye nañ ñu dimbali ba ëtt Touba gii bu fi kenn woote si sa kër mbaa si sa pénc mbaa si sa rokk loo xam ne am ndaje la moo xam ne dañ fay daje di wax politique loolu ñu ngi koy sàkku si ñi nga xam ne ñoo nekk Touba ñuy sàkkoot ñi nga xam ne dañuy def ay meeting wala ñuy def ay marche wala ay tee débat wala lu jëm si wàllu activité politique ñuy ñaan ngir jëmmi sëñ Touba Cheikh Modou Mountakha képp ku bëgg a def loolu na ko sëñ Mountakha waxe woon rek Mbàkke ngi fi feneen a ngi fi nga bàyyi say militant Mbàkke bàyyi sa caravane Mbàkke ñëw siyaare sa sëriñ sàkk mu ñaanal la nga delluwaat fekkaat say militant wala sa caravane dem defi sa activité politique foo xam ne kenn du la ko aaye kenn du waaye képp koo xamante ni ki yaa ngi ñëw bëgg a euh, jalgati loolu wax dëgg yàlla danañ danañ danañ dikk nag tere la ko te bu boobaa ah teg nañ ci ay daan yoo xam ne yaakaar naa ni duñ ko tudd fii waaye diis na diisaay boo xam ne ndax ñun danañ taxaw temm si li bëggu sëriñ bi mu am te bëggunoo euh, du yo kenn bu ñu sañoon loola du am kon loola maa ngi si soññ mbooleem koo xam ne kii yaa ngi yëngu si politique yaa xam ngay responsable politique nekk si Touba yaa xam ngay responsable politique nekk sa Ndakaar wala feneen di ñëw Touba di fi wut si yaa xam nga yor ay ay militant fii wala ay mouvement politique si biir dëkk bi képp ku fiy yëngu si wàllu politique ay affiche ak ay traag yooyu yëpp bëgguñu ku ko fi taf bëgguñu ko fi teg ay son bëgguñu ko def caravane bëgguñu ko organiser ay meeting bëgguñu ko organiser ay réunion suñu sañoon ñi koy def nañ ko defe ci Mbàkke Bawol loola loola ñu ngi si soññ suñu bopp di si soññ ñëpp li si dolli ko mooy football bi sëriñ bi wax na ni football lu ko naqari la lu ko naqari la te loolu ko naqari kat nun taalibe yi rek noo koy def si dëkk bii kon ñi ngi ñaan di ko si ndaw yi ak mag ñi ndax léegi léeg nga gis ay mag yi jëm ñoo koy def jël ay terrain aménager ko organiser ko di fa def ay match yooyu ñu ngi sàkku si ñoom ngir jëm bi sëñ Touba bu mënta ñàkk nañ ko defe ci feneen foo xam ne fi aayiwuñ ko fa waaye daal ab taalibe war naa rus sëñ Touba aaye dara ci dëkkam bii nga ne ab taalibe laa yaak sëñ Touba rek laa yaakaar ne maa lank fettirlu di ko fi def kon leneen lu nit ba fu nit bàyyi koo wax la dara lu jëm ci yoon wi yow su boobaa amoo loo ko tontu ndax yow yaa njëkk a weddi li nga xam ne mooy bëggu sëriñ bi yooyu mooy yi nga xam ne mooy yi sëñ bi wax ni bokk na ci li ko gën a naqari li si dolli ko mooy njàngale mu wuteeg njàngale mu sëñ Tuubaa kenn ku ne xam na ko loolu mooy ñi nga xam ne dañuy ñëw di weddi sëriñ bi di weddi njàngaleem sëriñ bi li sëñ Tuubaa daj ci lislaam li sëñ tubaa daj ci diine fi sëñ Tuubaa jaar ba samp lii dundam gépp mu mu sacrifié ko ngir jaam ñi am jàmm te ba muy ñaan waxul murit yi waxul ak njabootam mu ndéef yëpp lay ñaanal la mu liggéey ba mu agsi fii képp ku jàpp ni loolee da ngay ñëw nekk biir Tuubaa gii di fi dund di fi jariñu ba noppi di dox doxu bëgg koo weddi bëgg koo jalgati di ko jaar nag si suuf muy di influencer ay xale di leen manœuvrer di leen endoctriner si loo xam ne wuute nag njàngalem sëñ Tuubaa ñu di weddi seen i bàyyi di weddi seen i kilifa di weddi seen i ndey loolu képp ku nu dajal nga def ko bokk na ci faute majeure yi nga xam ne ku ñu gis nga def ko loole incha allahu danañ waxtaan ak yow ba ah loolee incha allahu nga bàyyi ko. yeneen yi nga xam ne nag yépp sëriñ bi wax na ko sëñ ba Bada dina ko lim léegi incha allahu yooyu yépp bokk na ci li sàmm war may Touba ndax nit ñi dañuy bàyyi koo fu ne di ñëw Touba bu dee jigéen bu jógee Ndakaaru di ñëw day muur sol lu jot ne Touba laa jëm. mooy tuubaa xam na ni lu yiw rek a fi am kay jóge ndakaaru nag war ma defar boppam ba war mawu ñëw Touba dikk bu ne cëpp yem si koo xamante ni kii fii la nekk waaye xotti war ma ja kookee xam na ni jëriñul dara sëñ Touba sëñ Touba ko jëriñ waaye moom njukkalul sëñ Touba loolee nag nañ fexe ba gàcce googu bu ñu dal mukk kon loolu xam naa si bañ a guddal bokk na si kàddu yi nga xam ne moom la ñu bëggoon a jotal li si des dañuy jox euh, sëriñ Bada su ko defee mu jottali kàddu yi mu si war a jottali lis bu noppee sëriñ maam Cheikh moom it kàddu yi ñaanal nu su ko defee nu yellu ko waaye daal ñëpp xam ni waaj xam ni incha allahu suba war nañoo tàbbiwaat ci liggéey bi ñii ñu tànn nag di limu 313 muy jëysun lim boobu ci Cheikh Modou Mountakha la bàyyi ko jëm ci jaar ci sëriñ Bassirou Mbacké mu sëriñ Abdou Khadir moo digle nu tànn 313. mooy li mu jëy suñ lam sa jublu nag ñun sax xamuñu ko moom moo ko xam waaye yàlla nu barke bi dal barke maam Cheikh Fall mooy ñii ngeen gis ñu sol tën yii kenn ku si nekk dañ laa defal ak tàggat fexe ba li sëñ bi bind si téere bi bëgg ko dañ laa tàggat ba ñu jàpp ni yow ni ko sëñ bi bëggee déggee nga ko ni ko sëñ bi waxee te am nga yéene jëfe ko ni ko sëñ bu bëggee ñooy ñii ngeen gis nii ñu taxaw ñoom ñoo fas yéene daje ak suñu bokki taalibe yi ngir laabirante ak ñoom ñoom nag duñ yor jaasi duñ yor fetal duñ yor yet duñ yor kuur danañ ñëw ni ko sëriñ bi bëggee ñu ñaan yàlla ñoom élan bi ñu jógee yàlla nañ fekk élan bu toll noonu si ñi jëm si ñoom waaye képp ku taxawit bëgg gàllankoor loolee faw danañ taxaw maslaa ak yow ba liñ ko bëggee nu amee ko ni ñoom nag waajal nañ leen ba waajtaay wi ñoom ñi yore groupe d'intervention yi bu ngeen tàbbee si terrain bi ñoom danañ xam ne ñii waajal nañ leen waaye nag ñu xam ne jóguñu ngir yox yox yi duñu maslaa tamit ci li nga xam ne mooy bëggug sëriñ bi maslaa bi daal mi ngi si jàppalante laabirante ba li sëriñ bëgg mu am ko waaye fetteerul moom fu mu amee te maa lank li sëñ bëgg duma ko def loole faw loole dina am loo xam ne dana tege si sa kaw te su boobaa wax dëgg yàlla nun teguñu la ko yaa teg sa bopp jotaay bii ñu toog de ñi nga xam ne ñoom la suñu ñoom la sëriñ bi dénk wàllu yoon ci dëkk bi ñu ngi toog ci suñu dégg xëy na sax am na ñu leen ràññeeku waaye ñoom dañoo am ndigal ndax Touba dëkk bu spécial la boo jaaree si buntu commissariat bi da ngay gis ñu bind commissariat spécial de Touba loolu nag moo doon sababu sëriñ bi ndigal yi ba mu ko jox dafa woo mboolem ñi nga xam ne ñooy kilifa yi jiite wàllu sécurité si dëkk bi. jox leen digal nu ànd ak ñun liggéey bii mu doon àndandoo boo xamante ne bii moom bañ ko ba léegi lépp parfait ba tax na lépp lu ñuy def danoo fas yéene ànd boobu noonu muy lii nga xam ne moom lañ fas yéene tàbbiwaat ci liggéey bii loolee digtal nañ ko ñi nga xam ne ñooy kilifa yi si wàllu police ak gendarmerie ba nu xam ko ba si seeni kilifa ñi nga xam ne ñoom ñoo leen di ñoom ñëpp ba xam ko ba am nañ yéene am pas-pas ànd ak ñun si liggéey bi kon ñuy jottali ay cant ak i ngërëm si turu sëriñ bi jëm si ñooñu nga xam ne ñooy force de sécurité yi nekk fii mu nga xam ne mooy bëggu sëriñ bi seen ndaw teew na fi wax naa ko léegi euh, ñuy ki nga xam ne moom moom la suñu borom teg dëkk bi si loxoom muy maire Touba di Abdou Lahad Ka kenn ku ne xam na ni sëriñ bi keroog ba mu nuy jox oto yii dafa wax ni li jëm si carburant bu koy doxal boole naa leen ak sëriñ Abdoulaye Ka moom jaayante ni weer bu jot danañu jox junniy litre si gasoil ngir ñu di ko def si oto yi di mën a liggéey liggéey lu ko jiitu yi am na lu bari loo xam ne séppal nañ ko si ab liggéey tàmbali woon ko tey marché bee barrière yi ñu fa tàmbali woon allah fas nañ ko yéene àggale ak mbooleem bërëb yi nga xam ne war nañ faa intervenir di ànd si ak ñoom ñu am yéene defar benn partenariat boo xam ne waxumu sax partenariat boo xam ne dañ koy ànd si ndigal li nga xam ne mooy bàyyi ko seen Tuubaa tey defar dëkk bi xam naa li si dolliku mooy ma fàttali ne liggéey bi dafa am ñaari ñaari ñaari pàcc dafa am benn bi nga xam ne mooy wàllu sécurité kenn ku ne xam ne ni war ma ji li si ëpp sécurité la waaye mooy li nga xam ne moom la sàmm am beneen pàcc boo xam ne nag moom euh, dafa jëm si wàllu ñoŋal bërëb yi nga xam ne ñoo nekk si dëkk bi mooy leeral mbedd yi leeral bërëb yi nga xam ne ñoom ñoom dañ koo fat wala dañ see defe jëfandikoo noo xam ne sago dañ see topp seen sago mm-hmm. te sëriñ bi tàmbali woon ko sa gaar ba muy ab joxoñ boo xam ne bii defoon na ko ñu tàmbali woon ko sa gaar ba muy toj gañ tojoon gaar ba jàll ba si corniche bi ba si marché Ocass loolu day liggéey boo xam ne dafa nekk si dafa bokk si sàmm war mi Touba te sëriñ bi bàyyi ko si sunu loxo ba léegi mu doon loo xam ne waruñu ko bàyyi ginnaaw waruñu ko fàtte xam naa li si mujj mooy garab yi nga xam ne doon lañ ko jëmbat muy bii ñu doon def si corniche bi ñu dindee garab yi ñu jëmbat ñu defaat ay xay sàkk woon nañ sax si ñi nga xam ne ñoo dëkk uuf garab yi ñu farlu si di ko di ko arrosé ak di ko toppatoo waaye ñàkkul yenn yoo xam ne yoo xam ne sàggante tax na mu mu loru yooyee bokk na si li ñu fas yéene jëkk saafara bu ñu jugaatee tàbbi si liggéey bokk na si nag li nga xam ne moom la ñu jëkkee mooy wàllu marché yi ndax sëriñ bi marché yi da am da amoon ak jaaxle lool yaakaar naa ne sababu liggéey bii bari na si loo xam ne si foofu la bàyyi ko occupation anarchique boo xam ne dañ ko def ñu ñu marché yi ñu nekk sa anam yoo xam ne tey bu jéyee amee ñi nga xam ne ñooy wàllu du ñu am sax fu ñu jaar ba wàll loola moo doon sababu seen digle woon ñu yaatal bërëb yooyu tàmbali woon nañ ko si marché Ocass incha allahu daanu ko wéeru ndax ñoom am nañ yéene ànd ak ñun dox boobu yi ñoom waa marché Ocass muy marchand ambulant ak commerçant yi ba am na jéego ñu si doxoon fa seen ko yéenee ànd ak ñoom wéeru marché maam Seynabou Ndiaye bële nga xam ne dafa ñoom dañoo delluwaat si kaw tali bi fi camion yi di jaar nga xam ne camion bu dérapé wala oto bu dérapé def loraange ju rëy rëy sëriñ bi bëgg nag ñu bañatee xaar ba jéyi am ñu topp si di wax waaye ñu jéem a fexe ba euh, fagandiku si loolee loola mooy sababu sëñ bi wax ne fépp fu danger mën a am nañu jéem a taxaw tem si faggan fa euh, faggandiku sa loola ba bu mënta ñàkk buy am doon loo xam ne lu oyof lay doon kon ñu xam ne marché yi déguerpissement yi nga xam ne moom lañ doon def incha allahu dañ koo fas yéene wéer muy pàcc bi jëkk si wàllu wormay Tuubaa ñu teg si nag lii nga xam ne mooy tere sëriñ bi jëm si wàllu euh, doxalin yi nga xam ne nit ñaa koy dox wala melokaan yi nga xam ne dama koy tënk rek si ñetti euh, benn minute su ko defee ñu xam ko activité politique loolu waxoon naa ko sëriñ bi dafa wax ni bokk na si di ko gën a naqari leeraloon naa ni kuy yëngu si politique na ko sëñ bi waxee woon na nga dem foo xam ne du la ko ay waaye Touba bëgguñu fi caravane bëgguñu fi bëgguñu fi ay réunion fi ay tàccu nit ñi topp di def ay yooyu yëpp sëriñ bi wax na ni képp ku ko bëgg a def na nga ko dimbali ngir jëmi sëñ Touba defe ko feneen loolu tënk naa beneen bi si topp bokk na si loolu nag ku ko def moom daan yi jëruñu di ko wax beneen bi si topp mooy eh, nit ñi di toggoo jigéen ñi nit nit ñi di si jakartaay loolu ñaaw na lool sëriñ bi nee na image bi ñaaw la loolu nañ ko aaye ñi ngi sàkku ña koy def ñu bàyyi ko te ñii togg góor it na nga xam ne ñuy togg ndax eh, agression yu bari léegi mi ngi am si nit ki jakartaay togg ki si ginnaaw di këf yëfi jàmbur ñuy daw ba loola nax yooyu yëpp nag yéen ñi yor jakartaay yi na ngeen gën ba kuy yàq tàbbi seen biir loolee kookee bañ a am ndam li si doole bi mooy euh, yokk yokku karaw loolu moom sëriñ kilifa yi aay nañ ko ba tàyyi lu jëm si wàllu ay mèche ay greffage loolu tamit bokk na si li nga xam ne ñu ngi ñaan sox suñu bokki soxna yi ñu tàqali ko ak moom ndax du bëgguk sëriñ bi te ñoom li sëñ bi bëgg rek si lañ war a nekk ñu ngi sàkk ñu bàyyi ko euh, yëre yoo xam ne dañu koy fànt nag ba mu weesu ab óom waxuñu fànt boo xam ne bii ak siwu si óom waaye yëre bu ñu fànt ba mu weesu óom nga xam ne say pooj day feeñ loolu dañ koy aaye buñ ko gis danañ la teg si danañ la soññi ngeen nga bàyyi ko ñiy jëfandikoo drogue ku ñu si jàpp si loolu danañ la jëmbal gendarmerie wala police ñoom ñu def ni war si yow loolu ñeel na tamit ñi nga xam ne jàpp nañ leen si xeetu yamba ak ñi nga xam ne dañ leen a jàpp si ak càcc sàcc boo xam ne da benn beru di ko def wala da am ñoo àndal di ko def wala da ngaa jëfandikoo ay ngànnaay wala ay pexe loola ñun dana leen jàpp teg la si loxo ñi nga xam ne ñooy police wala gendarmerie nga su ko defee ñoom ñu def si la sabar li jëm si wàllu tox cigarette ak poone kun si jàpp am na daan yoo xam ne daañu la ko teg su ko defee daan yooyu moom da ko def li jëm si wàllu xërëm xërëm lañu loolu am na am na lu ñu ci defoon léegi ak leeral xërëm mooy ñiy jëfandikoo loo xam ne lislaam nanguwu ko lu xaram la lu mel ne di jëfandikoo ay ay ay jëfandikoo ay xeet yoo xam ne ñu xaram la xam nañ ko loolu nag bokkul ak ñun lii ñu xam ñi nga xam ne dañuy yor seen i xaatim di xaatim wala yor seen ay seen i cunguf ak xeet yooyu loolu fii lañ ko fekk te ñëpp ko yittewoo di ko jariñoo loolu waxuñu ko waaye ku fi indi loo xam ne daal lu xaram lu mel ni ay jàllanga ki fétichisme daal loola xam nañ ko ñi koy def xam nañ ko loola dañ koy aaye comme si jàpp dañ la teg daan yoo xam ne wax dëgg yàlla dina xaw a ñiy jëfandikoo a sàngara loolu xam ngeen naka des ko fi aaye ñi nga xam ne nii dañuy euh, dañuy jaay seen bopp di ay góor wala ñuy sëy si seen biir di ay góor muy homosexualité loolu xam nañ ko ñoo loolu moom daje nañu moom fii ay yoon loolu moom ñu ngi ñaan yàlla yàlla bu mu bu mu bu mu amati mukk sëriñ ñi nga xam ne dañuy jëfandikoo am tëgg tëgg mi dafa bokk ci li sëñ tere muy tëgg sabar ak tëgg xiin ni ko sëriñ bi waxee woon cant nga xam ne dañ koy def tëgg ay xiin loolu bu ñu sañoon ñëpp lu bàyyi ko te euh, jublu ci li sëriñ bëgg rawatina nag xew yi xew yi nga xam ne bu amee dañuy tëgg ay bool di tëgg ay ndënd ñii di tëgg ay bëngu yooyu yëpp wax dëgg yàlla fu mu ko fekk bokk na si li nga xam ne ñu ngi koy tere bokk na si li ñuy tere mooy col bu yiwat yi col bu yiwat yi suñu ko mooy col bu xat col bu gàtt col bu yaraax loola ñu ngi sàkku képp koo xamante ni kii yaa ngi si loolu nga bàyyi ko wan ko ginnaaw parce que yéen di sol col bu yiw di muuru ah, muy góor ak jigéen la ndax col bu yi moom góor dina ko def jigéen ñu koy sàkku si ñëpp ah, li nga xam ne mooy ah, jaay sa bopp si wàllu jigéen muy muy na na ma yàlla baal lu ñaaw bon loolu loolu ñu ngi koy ñu ngi koy aaye di sàkku kenn bañ koo kenn bañ koo defee li nga xam ne mooy euh, ñàkke war ma njabootu sëñ Tuubaa gi ñàkke war ma njabootu sëñ Tuubaa gi loola si nun lay tàmbalee nun nun xalaatunoo ñàkke war ma njabootu sëñ Tuubaa loolu xalaatunu mooy ku nu dajeel wala ku nu giseel nga bokk si njabootu sëñ Tuubaa ñun lenn rek lañ seet ak yow mooy war na kon du ñu nangu kenn jóge feneen di ñëw bëgg a yàq wala nga bëgg a jaxase war may bëgg a suufeel nga bëgg a jalgati war ma jooju nga xam ne warloo nañ ko ak Serigne Touba loola bokk na si li aaye. ah occupation voie publique moom la ñu waxoon bi ñuy wax si wàllu marché yi. Ah, ak euh, wàllu corniche bi. ndax corniche bi dañ fi defar oo te dootuñu fi jóg nag mooy di jaar ci corniche li si sëriñ bi jublu woon mu leer nañ lépp lu fi ne te wuute wu bokkul ak loola ñu dindiwaat ko ba mu set wicc kon ñu ngi ñaan mboolem ko tegaat dara ci corniche bi wala nga defaat ko loo de def nga gaaw dindi ko ndax incha allah buñ fa ñëwee daana ko dindi ñi ngi jeexal nag suñu kàddu si di sant ñii nga xam ne ñoom la ñu jàkkaar loolu muy waa presse ñii di tas xibaar yi di jaar s sëriñ Fallou Gala Sylla mii nga xam ne si moom loolu jaar ak eh, sëriñ naar seen eh, eh, kuréel gi nga xam ne yéen a ko taxaw tem ngir lépp luy xibaar bu nu war a jot ci liggéey bii ngeen joxe ko sa na nga xam ne noonu la wàcce sa na mu gën a jube ak na mu gën a rafet ndax taskatu xibaar mën naa defar mën naa yàq waaye yéen yàq doo defar dong mooy seen yitte defar mooy seen bëgg ndax yitte yii ñu am si liggéey Sëriñ Tuubaa muy ndigal lii sëriñ bi ba mu koy wax dégg ngeen ko seen bopp noo yéen a ko ànd ndax kàddu gi fu mu àgg yéen a ko fa àggale kon nag yéen xam leen ni ñoo yéen a ànd liggéey bii lépp lu si war njabootu Cheikh Fall gi rek war na leen si yéen fu ngeen mën a féete nag si organe bu ngeen mën a nekk kon ñi ngi leen di sant si turu sëriñ bi tey sàkku nag nu ànd ko ak yéen euh, almouridia ak mbooleem ñi nga xam ne ñoo fi nekk yépp mënuma koo lim organ yi mat nañ fanweer ñi ngi fi li di ko sàkku si yéen lii di ndamul sëñ Touba muy nu egg ba mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ginnaaw bi ñu santee yàlla suñu borom tabaraka wa taala julli ci Moustapha xayru xalqillah di feddali suñu pas-pas te di ko jaarale ci murit bi nga xam ni mooy Cheikh Ibrahima Fall Lamp moom mi nga xam ni ba mu fasanteeg Cheikhuna Cheikh Ahmadou Bamba ca Mbacke Kajoor ilaa yawmina haza pas-pas boobee day gën di dëgër kon suñu pas-pas ñi ngi koy jaarale ci murit boobee di maam Cheikh Ibrahima Fall su ko defee nag kàddu yi nga xam ni wala ayatul quran bii ñu ubbee ak abiyatul xadimiya muy mbindum Cheikhul Xadim mi lépp rek li muy tekki mooy ak li ñu ci jublu mooy wane ni yàlla suñu borom moo njëkk a warmaal pàkkub Serigne Touba bu tedd bi Cheikhul Khadim itam jël xalimaam bind ci yaxal ci fonk koo xam ni fonk na ko dëkk bi ak ni mu li mu bëgg mu mel ko ba ñaan ko boromam ci xasidaan bi ñuy wax Matlabul Fawzi li nga xam ni dafa bëgg ñu sàmmal ko ko ci dëkk bi te moytu mu bañ fee am lépp mu bind ko ci téereem bu tedd boobu di Matlabul Fawzayni mooy abiyaat yooyu nga xam ni moom ngir dégg mu ubbee ko euh, waxtaan bi ci loolu nag kon loolu li muy tekki mooy ñor boobu nga xam ne moom la dëkk bii di Touba ñor Serigne Touba radiyallahu taala anhu ci la Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké sukkandiku ba jël liggéey bu màgg bi dénk ko njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall gépp te kenn génnu ci ak mboolem murid yi nga xam ni ñoom la seen maam ya àndoon wala seen bàyyee àndoon ak Serigne Touba ci liggéeyam bu màgg boobee. loole rek nag la ñu Cheikh Mouhamadoul Mountakha bëgg a dimbale ba tax mu jëlaat liggéey bii di sàmm war may teg ko ci loxo sëñ Amdi Fall moom sëñ Modou Mbend ak mboolem njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall gi ñu jiite ko waaye ñu ànd ko ak ñëpp. ci loolu nag ñu leen di xamal ni am na fi ab diir ni ko Serigne Dame Soda waxe boo xam ni. dafa mel ni dañ ni teg waaye tekk ji nag tekk la woon ju ne ci kaw waaye ci biir nag ab yëngatu bu bu mat sëkk la àndaloon ndax bi ñu sóoboo ci liggéey bi te sëriñ bi sant ko te sàkku ñu def ko ci anam goo xam ni day ànd akul dal te xat du damm deret du tuuru ñu ciy doxal ba mu yàgg ñu yëg ne am na ñoo xam ne dañoo jug raaxaloo ci liggéey bi te bokkuñu ci ñi nga xam ne ñoom lañu ko doon def loolu dem nañ ba saytu ci ne am na sax carte yi ñu joxoon waa intervention bi ñuy dem ci terrain bi am nañu ko falsifié ba yore ko di ci def loo xam ne bokkut ak li ñu leen sant kon loolee nag moo ñu sóoboon ci ñu ñu defoon ab lël ngir jubbantiwaat loolu ak seet nan lañ koy sécuriser ba ñi ciy soobu te seen yoon nekku ci wala ñu cay def lu méngoowut ak li ñu leen sant ñu xam loole nan la koy lijjantee loolu nag jural nañu ñu def ab lël boo xam ne def na ab diir ci biir lël boobu nag xool nañ ñoo xamante ni seen xam ci wàllu saahir ci wàllu gii ñu sëriñ bi liggéeyloo dañ caa am xam-xam boo xam ne xaj na ñun amuñu ko ca ñu lëlu ak ñoom ñu jël xam-xam boobee sotti ko ci murit yi nga xam ni mooy ñii sëriñ daam doon wax te ñu sol gilet yi taxaw ci suñu ginnaaw euh, di toll ci limu 313 muy limu jëysul ci bi nga xamee ni sëriñ bi moo sàkku ñu tënk ko ci lim boobu ku ne xam ne nag lim boobu am na solo lool ci taarix ñooñu nag nañu xam ne mbooleem li nga xam ne mooy waajtaay yi ñu leen war a waajale waajal nañ leen mbubb yi ñu sol tey mu jule yi mooy yi nga xam ne moom la ñuy tàbbee ci biir liggéey bi ànd na ak ay carte yoo xam ni carte yu professionnel la yoo xam ni bokkut ak yi nga xam ne moom la njëkkoon a yor te am ñoo xam ni def nañ ci ay tappale ba yor yu ni mel yii nag waajal nañ ko ci anam boo xam ni wóor nañu ne loolee du ci mën a am kon képp koo xam ni nit dikk na ci yow di liggéey ci war may Tuubaa ji na nga xam ni tënk nañ ko ci aw doxaliin woo xam ne lenn luy nuroo ak jalgati wala lenn luy nuroo lu safaanu bëggu sëriñ bi loolee doo gis ci jëmmam mu di ko def xàjjale nañ leen ci ay xeeti kuréel yoo xam ne ñenn ñu ci nekk am nañu njiit yoo xam ne ñoo leen jiite diriger leen di leen teg ci aw yoon woo xam ne duñu ko génn mukk ñoom ñooñu it waajal nañ leen ñoom li leen jiite seen waajtaayu bopp woo xam ni waajtaay wu kawe kon ci ñoom lañuy ñuy muy lim bii di jaysun di 313 bi nga xam ne ñoom lañu ñu yabal ci terrain bi ngir ñu jëfandikoo li nga xam ni mooy doxalin yi ñu bëgg ñu doxale ko ba liggéey bi dëppoo ak ni ko sëriñ bi bëggee ci ñoom ñooñu nag amut ci kenn koo xam ne sañ naa génn doxalin woowu waajal nañ tamit ku ko génn ci doxalin woowu la nga xam ne moo ci war a tege ci sa kaw ci ay daam kon ñii nga xam ne ñoom la sëriñ bi jaboote muy sëriñ Amdi Fall moom sëñ du benn te ñu teewal ko ci jëmmi dëkk Touba bi nga xam ne kenn ku ne ci ñoom dafa mel ni jëmmi sëriñ bi moo waroon a jug demal boppam ci dëkk bi saytul ko li ko Cheikh Mouhamadoul Mountakha di liggéeyloo nga wuutu ko ca kon képp koo xam ne jug nga dugg ci biir dëkk bi bokk ci bii ñu tànn te tàggat leen na nga xam ne jëmmi sëriñ Amdi Fall moom sëñ Modou Mbend moom nga porté kon na nga xam bu baax a baax ci la nga xam ne moom lañ la tàggat te nargan la ca nga fës yéene nekk te bu ko génn benn yoon leen la ci dolli ko muy ñi nga xam ne ñoom la ñu bokkal dëkk bi ñuy taalibe sëriñ Touba yi nga xam ni ñu nag ñoom ñoo yam képp ci dëkk bi yaakaar Serigne tubaa te bëgguñu lu dul ngërëmul Serigne Touba ñun ñëpp ni ñu ko bëggee di ko wut ñoom ñooña noon la ñu fekk muy seen itte ñu di ko wut. ñooña nag Serigne bi mi ngi leen di tàllal loxo di leen xamal ne liggéey bii ñun ñëpp ñoo ko set dafa mënta ñàkk nag am ñenn ñoo xam ni ñoom ñooy jiitu ni Serigne Salim waxe woon ne dëkk bii di Touba yi amul kenn koo xam ni jàpp na ni kenn du fi nekk di fi def loo xam ni lu neexul Serigne bi la te ko def ci sa tayal sa tayef kon day mel ni ki ñu umpale rek wala ñu ñàkk xam la ndax dëkk bii nga xam ne cheikhul xadim radiallahu taala anhu mu tedd ma mi ngi fi tëdd ak murit yi nga xam ne ñoom la sol ci seen jëmm ay ngërëm ak leer ba ñu fees dell jàpp naa ni ku mënoon sax doo fi dox sa sa tànk waaye bu fi am yitte sax dangay ngay ràmb defe naa ne nag loolu ñun ñi yaakaar Serigne Touba te ñooy ñi dëkkee dëkk bi kon ku ci def loo xam ne wuute na ak loolu njuumte moo la ko yóbbee waaye sa tayeef kon am di Fall moom sëriñ Modou Mbenda mi ngi tàllal loxo mbooleem ñi nga xam ne ñoo dëkk dëkk bi di leen xamal ne liggéey bii ko sëriñ bii liggéeyloo mi ngi ciy woo ñëpp te bëgg ñu àndandoo doxal ko ñun ñëpp su ko defee nag am na commission yoo xam ne ñoom lañu ñu tënk ngir ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoom ñoo taawu liggéey bi te nekk ci kanam sëriñ daam dikk na ci dañ koy gën a leeralaat rek ndax am di Fall moom sëriñ Modou mbenn mi nga xam ni moo fi nekkal maam Cheikh Ibrahima Fall moo nekkal boppam président bi nga xam ne moo jiite liggéey bi ngir itteel bu mu ko itteel ak ñor gu mu ko ñor jël nag sëriñ Daam Sooda mii ci sama càmmoñ def ko mooy nga xam ne moom moo ko jëmmal ci liggéey bi dox digganteem ak sëriñ bi ci la nga xam ne mooy ay yitteem ci lu jëm ci liggéey bi ak digganteem ak maanaam murid yi nga xam ni mooy ñi mu dénk liggéey bi te ñooñu ñam jiital mooy seen kilifa yi nga xam ne ñoo nekk ci buntu kër doomi maam Cheikh Ibrahima Fall di ay xulafaaw ak mbooleem cheikh yi nga xam ne ñoo àndoon ak suñu maam Cheikh Ibrahima ñoo ñooñee ñoo tànn seeni ndaw ya leen doy andi leen ñoom lañu ñu boole tënk ko muy lim bii nga xam ne ci lañu tànn ba mu mat 313 yooyu. sëriñ bi nag bi mu nekk jëlee sëñ daam soodo moomu doxale ko ci loolu dafa def sëriñ Assane Fall moom Cheikh Mouhamadou Moustapha Fall mu nekk secrétaire bi nga xam ne moo jiite secrétariat bi mu ànd ak sëriñ Ousseynou Fall rakkam ak sëriñ Baye Ndam Fall moom soxna benn Fallu ak sëñ Mortala Fall. ak sunu ak sëriñ maam Cheikh Fall moom Baye sëriñ Assane Fall ak sëriñ Mourtala Fall moom sëriñ Abdou Chakour Fall ak sëriñ Fallou Fall moom sëriñ Aliou Fall Mbawor ak sëriñ Abdoul Ahad Fall moom sëriñ Modou Maam Fall moom maam Saliou Fall ak man seen ndongo si ànd ci seen biir ci liggéey bi di Bada Fall mu sëriñ Dame Saliou Darou Khafor ñu ñooy waa secrétariat bi su ko defee tam am na commission boo xam ni mooy wàllu ñooy trésorier ñoo yore wàllu xaalis moom sëñ moo Modou Mbenda moo ca nekk ak sëriñ Bassirou Fall moom sëñ Cheikh Fall Cokke moom sëñ Mbacke Fall ak sëñ Fallou Fall moom sëñ Talla Yacine yi ci des nag day mel ni dañuy tudd rek boppu commission yi mu mel ne ñetteelu commission bi kon mooy commission bi nga xam ne mooy communication man mii di wax ak yéen man maa ci nekk ak ñi ma ko àndal ñëpp juróomeelu commission bi mooy commission supervision bi nga xam ne sëriñ Abdoul Ahad Fall moom moo ko jiite mu daaru juróom-benneelu commission bi mooy euh, mooy commission hmm, mooy commission coordination groupe intervention yi te Serigne Bachirou Fall moom Serigne Cheikh Fall Khady Gueye nekk ca bopp juróom-ñaareelu commission bi mooy commission médiation ak relation extérieure Baye Ndam Fall moom soxna Mbène ak Serigne Mortala Fall moom moo ko jiite juróom-ñetteelu commission bi mooy commission coordination kër maam Cheikh Ibrahima Fall gi nga xam ni lépp loo xam ni ab lijjanti la buñ fi indi ñoom ñoo koy saytu kooku Cheikh Moustapha Fall moom sëñ Fallu Fatikan moo ko jiite ak ñamu àndal juróom-ñeenteelu commission bi mooy commission discipline boobu it man nañ ni suñu kilifa yu mag yi ñëpp a nga ca biir Cheikh Baye Fall ma nga ca Baye Ndaam Soxna Mbeen ma nga ak mboolem nag ñi nga xam ni ñoom ñooy kilifa yu mag yi nga xam ne ñoom ñoo liggéey bi fukkeelu euh, bi mooy conseil des sages conseil mooy mboolem koo xam ne ab xalifa la ci kër maam Cheikh Ibra Fall wala ngay ab xalifa ci kër ci euh, seex si àndoona suñu maam Cheikh Ibra yaa ngi ci biir biir lool ak nag suñu doom yi nga xam ne ay doom lañ yoo xam ne seenub taxawaay kenn ku ne xam na ne mate na ko sëkk bu ñu tuddee ci biir kër gi ku mel ni sëñ Fallou Fall moom sëñ Mbacke Fall moom sëñ Modou Benn ca la bokk ak ñu mel ni moom ñi mu ko séqal ñu mel ni sëñ Fallou Modou Aminta sëñ Moussa Mbar ak ñooñu ñëpp rek ñi ngi ci biir ay Serigne Cheikh Fall ndigal mbooloo mu yaatu la waaye bu ñu ci tënkee ñooñu rek danañ mën a yóbbaale ña ci des ak Serigne Fallou Fall Cheikh Serigne Cheikh Fall Khadim ñooñu ñëpp ñu ngi ci biir ba ci Serigne Cheikh Bintou Fall damaa bëgg rek ñoom ñu xam ne ñoom seen mag yooyu ak ñeen ñi rek ñoo yóbbaale ñi ci des waaw juróom fukki fukkeelu commission bi ak benn mooy commission bi nga xam ni ñooy wàllu ñoo yore wàllu logistique waaw te bàyyi ndaam soxna mbenn jiite ko lu fi ndikk lu fi nekk ci oto yi nga xamante ni bii Cheikh mun Muntaxa joxoon jox nañu ko bi nga xamee ni moom liggéey bii loolu liñ ciy déggee mooy liggéey bi moom mooy ki ci jiitu ñëpp moo ci man ñëpp itteel na ko te ñor na ko ndax fi bàyyi maamam ju baax ja tegoon dëkkam bii di Touba foofee rek la la jàppe dëkk bi mi ngi ciy def li mu man lépp ndax la ci jiitu mooy xam ni lii moo yell ci dëkk bi mu taxaw temb ci ñu taxawoo nii dëkk bi yëmut ca loola nag alalam mooy jiitu ci liggéey bii jël na ñeenti oto jox ñu ko boole ñu ko Cheikh Mouhamadul Bachir moom it ñi ngi koy ñaanal sama borom sàmm ko te defal ko wér ndax taxawaayam ci liggéey bii nga xam ne moom lañu ñu sëriñ bi di liggéeyloo seetaan bi ñu benn yoon ànd na ko ak ñun guddi ak bëccëg suba ak ngoon lépp lu ñu jaaxal danañu delloo ci ak dal lijjanti li ñu ko ci am xel ak xam-xam bu mat sëkk kon yàlla na ko yàlla sàmm te aar barke oto yooyu muy joxoon ak mboolem matériel boo xam ne dafa aju ci biir War may Touba commission logistique ñoom ñoo ko yore sëñ sëñ sëñ ni ma ko waxee léegi sëñ bàyyi Ndaam moom sëñ Mor Talla Fall jiite ko ak sëñ Fallou Ndiam muy sëñ Fallou moom sëñ Mbacke Fall moom sëñ Modou Mber waaw bu ko defee am na beneen commission boo xam ne dama ko jëlal mooy commission mooy ñi nga xam ni rek ñooy wàllu commissaire au compte yi loolu sëñ Fallou Mbawar la ak sëriñ Ousseynou Fall nga xam ne seen xam-xam màcc na jëm ci loolu ñoom ñoo ci nekk ak ña nga xam ne ñoom la ñu koy àndal kon loolu mooy li nga xam ni moom lañ doon leeral ci wàllu commission yi su ko defee nag kon ñuy delluwaat rek di soññaat suñu bopp bu baax a baax di soññ itam mboolem population bi nga xam ne ñoo bokk dëkk-dëkk bi ñu xam ni li ñu sëriñ bi liggéeyloo mënuñu koo def mukk te ànduñu ko ak ñoom mbooleem seex yi nga xam ne ñoo àndoon ak sunu maam Cheikh Ibrahima ca ëttub sëriñ Touba radiyallahu taala anhu ba di ngërëm ñoom ñëpp sëriñ Amdi Fall moom sëñ Modou Mbend mi ngi leen di tàllal loxo li leen xamal ne ñoo bokk liggéey bii mi ngi leen ciy bàyyi xel di ci bàyyi xel seenu njaboot ak mbooleem imaam yi ak euh, délégué de quartier yi chef de quartier yi mbooleem ñi jiite mbootaay yi bàyyiwuñu kenn nañu xam ne daal dëkkub sëriñ tubaa bii kenn ku ne si ñun gëm nga ni boo faatoo buñ ne la jëyi ci sa bàmmeel yaa ngi fay yaakaar sëriñ Touba te gëm nga ni dana la fa fekk kon li nga xam ne moom lañ koy warmaale ci dëkkam bii noo ngi ciy yéene soobu suba insha allahu rabbi te fës ko yéene ànd ak mboolem ñi nga xam ne ñoom lañu ko seqal ñëpp bàyyiwuñu kenn su ko defee nag li ñuy daanale suñu kàddu foofu mooy ñu xam ni saytaane dafay koo xam ni ku bari doole la te yàq ak yàqale rek moom mooy liggéeyam bañ na ko ba Sëriñ Tuubaa dane laa taamunu makaida shaytaani qabla firaaxi ruuxi ab abdaani nee na li fekk suñu ruu yii mi ngi ànd ak suñu jëmm yii di suñu yàpp yaram bu ñu naagu ci ne mën nañu mucc ci saytaane lam ca wax nag moom dafa wax ne inni jaxaltullaha rabbiya yaxul bayni wa baynahu isaliya yashul nee na man nag sama borom laa jël doxale ko sama diggante ak moom segam moom moomee nag moom moo koy muslu te mucc ca bu yàgg rawatina ñun ñi nga xam ni ay nit ordinaire képp lañ ndax nee na li annahu kalbun alayka salata mawlaaka fastain bihi wa axlata nee na saytaane dafa mel ni ab xaj la boo xam ne yàlla moo ko jël xiir ko ci jëmm ji kon ci moom sunu borom rek lañ ci mën a musloo ba mën caa mucc loolu nag li ma ci jublu rek mooy ñu xam ne lii sëriñ bi bëgg lu mën a am la waaye bu ñu dé bu ñu bu ñu toppee saytaane rek dañuy galfan ba jàpp ni dafa mënta nekk sëriñ Saliou waxoon na ko dani seytaane bu bëggee yàqal murit bi ci digganteem ak sëriñ bi du ko jaar ci xeeb sëriñ bi wala wàcc darajey sëriñ bi waaye nee na fi mu koy jaare mooy yëkkati darajey sëriñ bi su sëriñ bi santaanee nga ne sëriñ bi kat nañ ko bàyyi muy sëriñ bi te ñun ñu di dong li mu santaane moom rek moo ko man nee na bu boobaa ma ngi lay yàqal te yëgoo mu teg ca misaal ne mi ngi mel ni bu sëriñ bi nee nañu dem ci ginnaaw kër ga buub ko ña jug jëm ca bari tax nga ni jërut may dem ndax ñay dem danañ ko mën a def kon nee na na nga jàpp ni amoo ca dara ndax soo demee la nga cay def mooy la nga ca am kon ñu ñun ñëpp muy ñun ñii ko sëriñ bi teg ci suñu loxo ak ñi dëkke dëkk bi ñoo ngi ànd fas yéene wax ba waxaaleel waa dëkk bi sax ñu fas yéene àndandoo ñun ñëpp jub taxaw temb ci li sëriñ bi bëgg ñu fexe ba mu am ndax sëriñ bi li mu bëgg lépp ñaan na ko boromam te boromam defal na ko kon yàlla nañu sama borom defal tawfiq ak ndimbal ba ñun ñu doon ñi nga xam ne la sëriñ bi bëgg ci suñu jëmm lay jaare wasalaamu salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu aoudu billahi min asheytaan rajim bismillahi rahmani bokki jullit bokki taalibe bokk yi nga xam ne ñoo maase ñun ñépp di déglu ndigalul Sëriñ Tuubaa maa ngi yëkkati ay kàddu yoo xam ne mi ngi bàyyi ko ci sëriñ bi ginnaaw bu sëriñ Ndaam Sooda doxee ci ndigalul kilifa yi wax ne sëriñ bi dafa bëgg mbooleem taskati xabaar yi nekk Tuubaa ak li ñu maasa daje fii ci kër maam Cheikh Ibrahima Fall bi ngir mën a jottali ndigalul sëriñ Touba li nga xam ne moom la jox maam Cheikh Ibrahima Fall loolu di ak cant yàlla bu rëy ci bu ñu xamee ne sëriñ Touba mag ñu bari ñu ngi nettali naan da daan wax Baye Malick Ndiaye naan ko jëgal yëgal fere yi Baye Malick Ndiaye mu tëggee xiinam nga wax ne ki ñuy xettali tey ak ëllëg nee yaakaari jaam yi nee na loolee bu nu yàlla dimbalee Baye Malick Ndiaye moomu am taw feex ju toll ne daal jottalil sëñ Touba may ko maqaama mi mu am ñun ñi yëngatu ci presse ñu toog bañ nañu kaay leen jottalil sëñ Touba ay kàddoom day mel na sof nañ fa Baye Malick Ndiaye sa xol yàllante woon nag presse bi xam ne mission liggéeyal sëñ Touba lañ am ak di jottali kàddu sëriñ Touba gu maam Cheikh Rahima Fall di wax mu jëm ci ndigal ndigal loo xam ne. ki fekkoon àll bi lëndëm mu jël xeppam la ngor ko ba mu leer lëndëmuk saayiram googee mu leeral ba mu demee ba lëndëmuk baatin nar cee tab bi moom la Sëriñ Tuubaa ñëw na ko kaay leeralaat wa hajjatan liman bi duxfin irtada waaye wa hujjatan ala muxaalifin pakk bi nga xam ne nag mooy mooy mooy daj ji tànku ku nar a xëtt ndigal li pakk boobu mooy Cheikh Ibrahima Fall moo tax sëriñ bi jox ndigal li sëriñ Amdi Moustapha moom sëriñ Modou la mu woo ay rakkam woo ay jarbaatam woo ay sëtam woo képp koo xam ne sa bopp bi nopp buy déglu ndigal a nga ci mu ne nag kaay leen ñu ànd leeralal sëriñ Touba dëkkam bii te kenn nattab li ne dëkk bi de bi ko sëriñ Touba di leerlu lëndëm a ngi ci ndax lim ñaan ci mat labul faw seen yi loo ca gis rek bay wa ko topp day dàq wa ca des ba mu ci wa maskani salim min al fujaari wam nun ala ahli bi ma in jaari ba mu ñaan ndox muy daw daa ñaan suñu borom génneel ko saay-saay fii ne ci biir dëkk bi loolu nag sëriñ Abdou Lahad daf ci joxe woon ab mbind bu leer sëriñ Abdou Lahad bi muy tere ci dëkk bii di Touba te tere bi jéggi ab dayo daa dem ba yàgg mu jëli ay gendarme yoo xam ne ay xaj lañ andi leen ci dëkk bi toog ci penku jumaa ji ñoo ñooñuy wër dëkk bi am ku dikk na ko xaj yi ci biir dëkk bi mu ne ko xaj xajay xam morom ja te luy tax dëkku Serigne Touba bii leer ba ñu ma ca dara kon leeral dëkk bi fa mu àggoon Serigne Touba bañ demee ba loolee lëndëm googu dellusiwaat la sëñ bi nag fob yëf yi yat wi jox ko ak sàmm bi kan mooy sàmm bi mooy maam Cheikh Aliou Fall mu yor yat wi ñu fas yéene jëfandikoo baat bu Serigne Touba mu Mouhamadul Mountakha wax Serigne Mountakha daf ne ku baax laay waxal waaye ku bon damay jëflanteeg moom. moo tax sëriñ am di wax ne ñi baax laay la ab renteel waaye ñi bon damaa fas yéene jëflanteeg jëflanteeg ñoom Baye Fall yi nag jóg wax ne buñ sañoon lii leen sëñ bi di tere tereloo duñ ci jàpp kenn duñ ci gis kenn loolu mooy yërmande ju yàqu buñ sañoon duñ jàpp kenn am na kuy rond ngir bëgg a jàpp am na kuy xool ngir bëgg a gis ñoom nag liñ njëkk a tàmbalee mooy buñ sañoon buñ xoolee duñ gis buñ dee wër duñ jàpp kenn loolu mooy dañuy fekk nit ñu jub kon koo xam ne xëtt nga ndigal loolu ba suñ borom dogal na la ñuy tere agsi ci yow rikki kilifa gum mën a doon ca ne ci Touba tey jàppale sëñ Muntaxa boroom kër bu ne ci Touba tey jàppale sëñ Muntaxa rikki waay na nga rusa def intervention ndax boo defee intervention rek yaa ngay jàppale ab say-say te ñoom lii ñuy tere lu araam la lu yàlla tere la yonent bi tere ko Serigne Touba tere ko doomi Serigne Touba yépp ñëw tere ko ñu teg ko ci seen loxo ñu dañ ko tere lool kon rikki képp koo xam ne jàpp nañ ci sa doom daan yan lay teg nan ko muñ te xam ne daani àdduna moo gën daani àllaaxira te mën naa am buñ la daanee fii ci àdduna boo ëllëgee yomal fi am kenn du la daan waaye boo tooñee nag tooñ bu jëm ëllëg daanuñu la ko àdduna faw ñu daan la ko àllaaxira kon bàyyi faal yi liñ ñuy dawal mooy daani ëllëg rek lañ ñuy moo tax daan buñ ci teg na woyof tooy ci kon daje bi moo tax sëriñ daam soodo lim tere yi yaakaar naa bi mu ko limee ne képp ku ci laalu dara sam xel dal na yaa ngay tëdd nelaw koo dégg aw fitam jóg ci rek daane ci la ñuy tere koo dégg mu yëkkatiwaat kàddu teg ko ci daalam nekk ci lañuy ñuy tere faaw kii digle nag bu jógee ka fas yéene xëtt ndigal dana jóg ne ca rajo ya ne ca réseaux sociaux ya di commentaire ak a wax leneen ku ngeen ci dégg na ngeen xam ne ko fas yéene xëtt ndigal la su boobaa bu jaaree ci média yéen média yi du ko kenn jàllale nañ ko ignorer te xam ne kii daa bëgg xëtt ndigalul sëriñ dafa war seex si war kuréel yi war daayira yi buntu kër yi seex yépp dañoo war a xam ne dañoo war a jàppale maam Cheikh Ibrahima Fall ndax seen maam yi ak Cheikh Ibrahima Fall ñoo daje woon Mbàkke Kajoor ñoo daje woon daal Mbàkke Bawol ñoo daje Daaru Salaam daje Touba ngir doon wut ngërëmul yàlla kañ doon wut ngërëmam nag moo fi nekk jógatu fi ñu jox Cheikh Ibrahima Fall ndigal ñoom ñëpp nañ maasa sot la Cheikh Ibrahima ci ndigal li ba mu daan ko ba ko xool Touba la sëñ Touba ñaanoon waccal bihi daayiyakal madina barakatan wa kahbatal masuna boo xoolee makkatal mukarrama madinatul munawwara boo xoolee Tuubaa xam ne benn pàkk rek la kon mbokk yi kàddu yooyu moo tax Baay Faal woote woote fii ci ndigalul Serigne Mountakha jaar ci Cheikh Mouhamadul Basir moom Serigne Mountakha waxoon it nag ñeenti oto yii sëñ Mountakha yëkkati teg ko ci loxol Baay Faal yi da ko ubbee bunt bi tey digal taalibe bu ko man nga dem jënd oto yet Baay Faal loolu ndigal la lu sëñ Muntaxa joxe jaarale ko sëñ Basiir wax na oto yi bu matoon junni doyut kon nag yëkkati naa ñeenti oto ubbee ko bunt bi di ñaan fu ab taalibe ne te mën a def ngir jëmmi yàlla nga jënd ab oto yët ko Baay Faal yi ñu jàppale ko ci liggéey bi ndax 313 personnes kat yoo xam ne subaa ngoon dañuy liggéey ku ne xam ne ne ñeenti oto mun leen a séddalewu ko ci dëkk bi te dëkk bi rëy na quartier yi bari na te saay-saay si fu ne la ñuy jaar kon war nañoo am oto yu doy te baax te gaaw ñeme suuf ñeme ay ëpp ñeme ay kàmb loolu nag ñoom ubbi nañ seen i bunt képp koo xamante ni bi daal ndigalul sëñ Tuubaa yi fas na ci yéenee tàbbi jaarale bu Seex Rajo Fall jëndalub oto ñi ko man xam nañ ko ku mënta jënd ab oto te man di joxe gasoil commune bi nee nañ danañ joxe weer bu dee junniy litre yi gasoil waaye loolu ku ne xam ne ne doyul ki mën a participer gasoil na xam ne man na maa participer gasoil weer bu dee danaa ca dugal nangam ka mënut loola te xam ne ñii li wër ci àll bi dañoo war di añ dañoo war di dañoo war a bàyyi seeni kër dara la nga man ci participation nga jox ko Baay Faal yi ñu di ko def ci liggéey boobu nga mën a waat ne yaa nga sa kër tëdd waaye yaa ngay liggéeyal Serigne Touba ci biir dëkk bii di Touba te la la ko may mooy sa wërsëg wane sa poos te boo ko joxut sëñ bi rek day dem ndax àllaaxira nangu na yóbbante waaye nangu wut yóbbaale loo tee yóbbante ko yàlla danga ko waaye bu dara desul lu dul dem nag doo yóbbaale dara ba ci portable bi nga yoroon kon nag nañ gaaw yóbbante suñu alal jaarale ko Cheikh Rama Fall mu joxal ñu ko Serigne Touba kon dañuy bàyyi kàddu gi Serigne bi maam Cheikh mi nga xam ne moo fi teewal Serigne maam Cheikh Fall mu Serigne Assane Fall mi fi teewal kilifa yëpp waaye di wax ci turu Serigne bi nag nga xam ne bi mu dégloo kàddu yëpp moom moo ko war a tëj ñun ñëpp ñu maase déglu ko te xam ne ginnaaw tey suba suba la Baye Fall yi dem ci terrain bi rikki waaye kuñ fi fekk tooñu ñu la awartiise nañ leen. digtal leen ko wax leen ko ngeen dégg waxaat leen ko kon nag képp koo xam ne yaa ngi ci loo xam ne buñ ko jëlee ci yow mu métti la gaawal jël ko moo gën bala ñoo ñëw ngay dem di def intervention ci benn sëriñ ndax kat sëriñ si moom tëj nañ seen i bunt ngir intervention moom fasuñu ko ci yéenee def ndax xam ne ñii li ñuy sàmm mooy war may dëkk bi di war may sëriñ Tuubaa ji te kat fa man yu xasib urmatullahi fa huwa xayrun lahu kon nag war warmaal lu yàlla warmaal moo gën bañ ngaa warmaal kon ñun ñëpp ñu maa déglu sëriñ maam Cheikh mu sëriñ Assane Fall الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم barke borom Touba barke maam Cheikh Ibrahima Fall ñoo ngi nuyu mboolem yépp di ci jiital kilifa yëpp ak mboolem mbokk taalibe yi ak mboolem autorité de police yi fi nekk ak mboolem presse bi ñoo ngi feddali sunu jaayante ak sunu mooy. ak sunu wóolu ci Serigne Touba di feddali sunu jaayante sunu ngoy ak sunu wóolu ci maam Cheikh Ibrahima Fall di dellu si rek di wax la waxoon ci njëlbeen gi rek dañoo waxoon ne liggéey bii dinañ ko def ak xereñ dinañ ko def ak fulla dinañ ko def ak fayda dinañ ko def ak xereñ dinañ ko def ak yar ak teggin dinañ ko def ak fulla ak fayda loolu li ma ci joxe lu tuuti rek la muy luñ ci mën a sukkandikoo dafa am benn tubaab horticulture yi dañ ko def la woon benn gëstu ci maam Cheikh mu wax ne Cheikh Ibrahima Fall jëmm joo xam ne la ju jox orma autorité coloniale yépp la waaye nag mbiram lu jar a tey la mbiram lu jar a tey la ndax sëriñam boobu di Ahmadou Bamba lu mu ko digal rek dana ko def ñun ñii tamit ka digle woon mooy sëriñ Touba kam daan digal mooy Cheikh Ibra ki digle mooy sëñ Muntaxa di sëñ Touba kam digal mooy sëñ Amdi Moodu Mbenda mu wëlbati ko digal ñu dinañ ko def ci yar ak teggin waaye dinañ ko def ci fulla ak fayda foofu maam Cheikh Ibrahima nekkoon rek nga xam ne lu ko sëriñ ñam ba musu sant dana ko def ñun njaboot gi yëpp foofu la ñu nekk <laughs> ñi ngi jaar nag ci ndaje bii di wax ne tàllal nañ suñu loxo mbooleem kilifa yi nga xam ne nii dañoo nekk ci yoon wi di tàmbalee ci suñu biir kër kër maam Cheikh Ibra mbooleem suñu mag yi nga xam ne nii dañoo nekk xalifa seen kër wayjur ak sunu doom yi nekk xalifa ci seen kër wayjur ak cheikh yi maam Cheikh Ibrahima Fall yi ñoom ñëpp ñu ngi leen di woo ci liggéey bi di leen ci xaar di ci xaar seenu jàppale mbooleem jëwriñ yi nga xam ne nii ay jëwriñ lañu doon ay jëwriñu daayira ak jëwriñu kuréel ñu ngi leen di xaar mbooleem ñi nga xam ne dañoo bokk yoon yu ak Serigne Mountakha di ay rakkam ñu ngi leen di sàkku ci ñoom ñaan di leen tàllal suñu loxo di leen wax ne danañ sàkk ay ndaw ñu ñëw ba ci ñoom mbooleem cheikh yi nga xam ne dañoo nekk ci yoonu murit ñu ngi leen di xamal ne ci liggéey bi lañ bokk te danañ ñëw waxtaan si ak ñoom sàkku ci seen jàppale ak seeni xalaat mboolem imaam yi imaam yi ñu ngi leen di tàllal loxo di leen wax ne dana ñëw te di leen ñaan ci seeni biiri xutba ñuy jàllale liggéey bi nga xam ne ndigalu Serigne Touba la wet googu ñu jàppale ñu ci liggéey bi autorité yi nekk ci région bi yépp ak ci département bi ak ci commune bu Touba ñu ngi leen di woo ci liggéey bu tedd bii di xaar seeni jàppale muy préfet ak sous-préfet mbooleem outil force de sécurité yépp di gendarmerie di police ñoo ngi leen di xaar ci liggéey bi ñoom sax tàmbali nañoo ñëw ndax ndaje bi sax seen ndaw teew na fi mbooleem koo xam ne nag bonne volonté nga te bëgg a liggéeyal Serigne Touba bëgg foo ko jaarale bunt bu yees peq ubbeeku na muy buntu sàmm war may Touba mbooleem délégué de quartier yi mboolem daayira yi mboolem mbootaay yi mboolem bàjjanu gox yi na dinañ ñëw ci ñoom waxtaan ak ñoom ngir ñu àndandoo liggéey bi ñi may mujjee nag mooy askanu Touba muy ñi nga xam ne suñuy mbokku taalibe lañ te ñu ñoom liggéeyu Serigne tubaab yi nañ xam ne seeni mbokku taalibe ñoo jug di jëm si ci ñoom. ñaari ñaari gànnaay lañ yor ci suñu liggéey bii ba ñett waaye buñ sañoon ci ñaar ñaar yi la yem bi ci njëkk mooy communication communication mooy benn ci suñu gànnaay yi ba ca topp mooy maslaa maslaa ci sunu gànnaay yi la bokk waaye nag bi mujj bëgguñu koo jëfandikoo loolu ku féerteerlu rek mooy tax ñu jëfandikoo ko. kon ñoom ñëpp daal ñu ngi leen di xamal ne seen i mbokku taalibe ñoo ñëw ci ñoom te xam nañ ne ñoom it ay taalibe sëñ Touba yu sàkku ngërëmal sëriñ Touba lañ kon nag buñ ñëwee nañ yombalal liggéey bi te xam ne seen mbokku taalibe ñoo ñëw ci ñoom maa ngi daanale samay kàddu nag di fàttali li sëriñ Ga Galas sëñ Fallou Galas si la wax léegi ndax bis bi sax bisu bisu. levée de la waroon a doon bisub jaayante la la waroon a doon waaye dafa xat te kilifa yi jóge poroxaan te bëgguñu kilifa yi ko war a teewee yëpp duñ leen mën a am ndax màggalu poroxaan bi waaye ñi ngi woom mbooleem koo xam ne nii jàpp nga ne liggéeyal Serigne Touba ñor na la ñi ngi lay woo ngir nga sof ci jëfu Serigne Mountakha bi nga xam ne nii jëf na ko muy jël àddiyaam def ko ci liggéey bi jël nañ ñeenti daamar yu mucc ayib yu dëgër jox ko kuréel gi ngir ñu tàmbalee ko moom nag ubbi na bunt kon jàpp naa ne ku bokk ci sëriñ Touba rek bunt boobu ubbeeku na ci yow kuy seexu sëriñ tubaa bunt boobu ubbeeku na ci yow ñi nga xam ne nag dañoo bokk ak ñoom maam Cheikh Ibra Fall waxee su leen ndax ñoom ci biir lañ bokk kon ñi ngi woo ñoom ñëpp ñu ngi leen di woo ci jaayante bi di woo suñu mbokku taalibe yëpp ci jaayante bi. fii ñu toog léegi rek jaante nañ fi lim bu takk boo xam ne nii mi ñun kon nag ubbeeku na buñ daanalee kàddu bi incha allah balaa ñu yeewi journaliste yi dana leen jox numéro yi nga xam ne nii ubbi nañ ko muy ñaari numéro benn bu Orange Money ak benn bu Wave ak numéro compte bi nga xam ne nii muy ñetti numéro yoo xam ne ku bëgg a dugal dara ci jaayante ci liggéey bi mën nga ko cee jaarale ñi ngi yemale foofu kàddu yi tey dellu di sant bu baax a baax a baax di sant képp ku fi teew di xamal ne daal ñun waa kër Cheikh Ibra engagé nañ ci sëriñ Touba am lim bëgg te naruñu cee dellu gannaaw li ñu wér te wër ñu nag mooy la sëriñ ba waxoon ndigal bu la génnee sa kër moo la fay xaar ba nga dellu si la yabal tam moo la fay jiitu kon nag suñu xel dal na ci liggéey bi xam nañ ne ndam rek moo ci topp wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu